jëf ji ñeel ngërëm yéene bi rëy lool yaakaar bi tam doon loo xam ni rekk képp ku dëkk Kébémer am nga ci yaakaar ni bés dina ñëw fileeki ay weer nga mën a faju sa dëkk te doo fa génn kii di góor gi si Dieng nag moo def li ni mel teg la nga xam ni rek mooy acte bu njëkk ci wàllu projet bu mag bi doon hôpital. li tax ma def ko mooy bi ñu ñëwee indi andi woon ay matériel pour euh, district bi fii euh, adapté woon ak li fi nekk donc man ni matériel mi ngi fii taxaw di yàqu yàgg fii moo ñenn ñi des nga laaj ne lii mi ngi fii lii mu ngi fole ma ne pourquoi pas ñu defar hôpital boo xam ni. matériel yëpp na ñëw bu ñu indiwaatee matériel na dugg foofu nekk foofu pour askan bi mën ko jëriñoo def si liñ si bëgg a def bon ma ànd ak si ak ay partenaire nag ak sama waa fondation ànd si ak Roger Nancy Mackey Foundation ànd si ak Maata ànd si ay yeneen ñoo xam ni ñu ngi ñëw di di ma jàppale ci liggéey bi may def ñu bokk gëm-gëm. hôpital bii nga xam ne si tey.

defe naa ni lii solution bi mooy hôpital ndax nag waa Kébémer di fajoo ji ay Louga di dem Ndar di dem Dakar di dem fu nekk ci àddina bi te matériel am na fi mënuñu ko utiliser ma daal tabax hôpital laa bëgg ma ne ko ci yow la des hôpital bu bees bi nag war rek yokk lépp loo xamante ne plateau technique la maanaam faju bu mucc ayib ci biir Kébémer waaye itam ci région de Louga bi yëpp. day am spécialité yëpp wala yu gën a bëri te am nañ yaakaar dana tax référence yi ak évacuation yi ci Louga wala ci Thiès wala ci Dakar bu dañul à 100 pour cent dana wàññeeku baax a baax te loolu madame la ministre mi ngi ñaax di monsieur le maire. la commune de Kébémer mu taxaw ci wetu service de santé yi ci wetu médecin chef région bi ci wetu médecin district bi ak CDS pour entretien bi ak maintenance bi. ma koy def it man wax naa maire bi nii leen ñun lii la ñu mën ah, da ngeen di def espace bu mag ba ngeen xam ni ëllëg bu état bi ñëwee bëgg ko yóbbu ci beneen niveau du jar toj tabaxaat day ñëw rek yokk dooleem mu nekk nga xam ni continuité lay doon. lool moo waral tey ñi nga xam ni nag ñoo yeewoo Kébémer am mbégte bu baax ci li nga xam ni moom la seen doom di góor gi ci tekk mu doon nag loo xam ni jëkkewu ko ndax nag saa su ne rek mu wane xolam bu rëy ci wàllu ñi nga xam ni ñoo dëkk ak moom foofu ci Kébémer. loo xam ne day njariñu dëkk bi di njariñu Sénégal yàkkante nañ ndax suñu rakk la ñoo ngi koy ñaanal ci kàttanu yàlla. lii mu sumb yàlla na ek ak jàmm ban ñëw fii di koy inauguré ci kàttanu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bala ngaa éduqué wu da am santé kon santé mooy prioritaire góor gi si ñee nag nu fi hôpital boo xam ne bii ñun waa Kébémer bala noo faju faj mi war ci ñun dañoo dem Dakar mbaa ñu dem Louga mbaa ñu dem Ndar kon bu nu yàlla defalee tey jii góor gi si dana fi def hôpital boo xam ne bi dootuñu ma dootuñu dem Louga dootuñu dem Ndar dootuñu dem Dakar sunu ndimbal la. ñu koy bu baax lii mu bëgg a def nag yal na ko yàlla ak Serigne Touba Mbacke àggale ci jàmm ak salaam waaw gi nit ku baax la. ko inauguré ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan na li mu def nag defalu ko boppam boppam la ko defal ndaxte waa Kébémer gépp la ko defal sant nañ bu baax di julli ci yonent bi yàlla egg ci jàmm te nu fekkee ci jàmm ak salaam. ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nag. yor seen alal toog jàpp seen ñàmbur am fi ay ndombay tànk jot nañu ñëw wane seen bopp. parce que état moo def lépp Sénégal pays sous-développé la amuñu alal kon ñi nga xam ne ñoom as tuut nañ ko boole ñëw defar dëkk bi mais bu buñ toogee di xaar naan dëkk bi lii état lii état laa état kuñ ci génne mu manqué muy yow di man di keneen. ñu ñëw liggéey ñun ñëpp defar suñu réew ku ci nekk li nga mën nga def ko li nga xam ne yow. nga yaakaar ni soxla woo ko xëy na am na keneen ku koy wër suba ba ngoon te mënu koo teg bëtam kon bul néewal dara sa ñaar dërëm bi bu ko xeeb sa doole bu ko xeeb ki toog nga may ko loxo mu jóg bul ko xeeb ndax xëy na kooku toog na ay at mënul jóg kon tey jot na def fulla ak fayda liggéey ñu ñëpp ñu booloo defar Sénégal bu baaxee ñun la baaxal su ci lu toll ci cinq hectares nag ci la bâtiment bi wara tegu ñu jàpp ne nag tabax bi moom mën naa jël rekk fukki weer ak juróom-ñett ki nga xam ni nag mooy góor gi ci Dieng woon ak képp koo xam ni rekk doomu Sénégal nga nga dugal sa loxo te it nga dugal sa alal bu la ko yàlla mayee wala boog ci ni mu toll ngir nag ñu mën a defar Sénégal ndax nag Sénégal sénégalais yi ñoo ci mën a